mbokki Touba yi ñu ngi leen di nuyu yeen ñëpp seen tour seen sant di wax ne ñun délégation bi nga xamantene mom la jité ñu and ñew fi délégation tank la parce que ba nga and ak jaraafu Wakaam di jaraaf al ak une forte délégation bu bu Faray yof ñew pour and ak Cheikh Mansour bok ak mom bëss bi mu di bëss bo xamantene bi bëss bu ñu ñor la bëss bu ñu fonk la parce que Cheikh Mansour doom la mbokk la sët la jarbaat la euh, la nga xamante ne moom la ñu def liggéey ko si dëkk bi rafet na bu fekkente ne dañ toll si bësëm muy bësu sëñ sëñ euh, bësu sëñ Bàmba donc ñun war nañ fi mën a ñëw pour sargal ko pour ñu xam ne Cheikh Mansour ànd na ak ay mbokkam Cheikh Mansour wax si moom euh, du jafe parce dafa nekk koo xamante ne kii lépp loo xamante uti na si yoonu diine si yoonu yàlla baax si njabootu papam parce que ñëpp xam nañ ne waajuram bu góor mooy waayoof te lépp loo xamante ne li aussi dugg na ko si wàllu ndeyam fekk nañ ko fu mu dëkk deflante ak moom te ñañ fa fekk it ñu mel ni ñun lañu fa fekk xër nañ lool Cheikh Mansour donc mu nit ku yaru ku baax ku bëgg ku fonk askanam parce que lépp loo xamante ne dañu koy dox si dëkk bi muy yoof di wakaam wax lu mu manti doon fépp fu ñu dëgg féewaloo fu mu manti doon Cheikh Mansour dëgg na fa tànkam defaral leen def fa lu baax inculqué lu baax si suñuy doom xale yi tey yi boo leen xoolee Cheikh Mansour génn na leen si lu bari dugal leen si yoonu diine te boobu liggéey rek dafa rafet ñu ñu koy sant di ko gërëm li nga xam ne délégation bi ñuy def nag dañuy ñaan yàlla muy gën di yokk parce que buñ sañoon bu ne buñ ne ñu ngi dem Touba nga gis yoof gépp teew wakaam gépp a teew ngor gépp a teew mais nag yoon yamul si benn te ñu ngi koy gërëm di ko sant loolu laa amoon di ko si wax ngeen jégal moo sax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente wi di sant sëriñ Touba sunu la ci li mu nu fekkeloo màggal gii te nu màggale ko foo xamante ni fi nu ko war a màggale la ndax dañ ko màggale ci jitaay boo xamante ni dara lu dul yàlla ak yonent bi ak sëriñ tubaa néewu ci képp ku xam ni ñëw nga fi ak foo mën a jóge boo jëmee ci kër seex Mansour di nga xam ni màggal gi da koy màggal te yàlla ak yonent bi ak sëriñ tubaa dong tax xoolu ci xamante ni lii lu neex Sàmba la wala Demba li mu ci xool mooy lu neex sëriñ tubaa ak wasilaam ba di sunu sang bu baax ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ni ñu ko màggale gis nañu dépense yi li mu ci def gis nañu it ni nga xamante ni loola la ci amee ab taxawaay boo xamante ni taxawaay bu yéem ñëpp la ndax képp koo xamante ni ñu ngi fi tey jii rek ma gis la man di wax ak yow xam nga xamal nga ma ni ma te musoo fee ñëw ban tey li ma daan màggal ndeke di nga daan def du màggal man daal dama doon ñëw lu dama ne saari tourisme rek moom daal da ngay ñëw topp dëkk bi boo doxee dox dox dox ba sonn lekk ba rek goññeeku waaye doo ko dunde nii ñu ko dunde lii nag xam naa ni depuis que yàlla def cër bii ci moom ba tey nii la koy doxale nii la ci la koy wonee fépp fu mu demee noonu la ci wonee Serigne Touba ni muy wonee Serigne Touba fii ci Touba noonu la koy wonee Yoof noonu la koy wonee Ngor noonu la koy wonee Wakaam ak fépp foo xamante ni sëñ bi eh, teg na ko fa gis nañu ne yërmande jii nga xamante ne moom la am am ko ci taalibe yi am ko ci xel ci xel yi nga xam ne ñëw su ko jébbalu si moom ndax kenn ku ci nekk defal na la loo xamante ne lii amaa dama sa waajur bu ko mënee ci defu ko ca ndax man na loola maa ngi koy commencé ci sama waa kër ndax sama waa kër ñoom ñëpp yàlla def na ñu ngi ci daara ji ci ci kippaaru Cheikh Mansour di ko dund te amul dara dara dara loo xamante ne bañal na ko bañal na ko ci ci ab coono ci samay doom li muy def ci samay doom man mënuma ko ci bu ñu ne leen teg na leen ci yoonu yàlla def na leen ci coono nangoo liggéey ndax daaw rek la jël sama doom jëndal ko ay machine di muy ñaweete ngir yàlla ak yonent bi ak jàppale ma man mii xamal ko ni kat lii ngay lii ngay li ma bëgg mooy nga fas góor góorlu jàppale sa papa kon loola kooko ban aw ma payam ba wax ci dolli man mii si boppam samaw tur bu ñu ko soppee ba naa ma alaaji yàlla ak moom moo moo tax waaw te dara waralu ko lu tax defalu ma dara nag lu dul jëmmi sëriñ Tuubaa ji rek la la seex bi la ma ko seex bi defalee ndeddu loo xamante ne loola laa ko defal wala ngor gu ma ko ji wala ko ji ba tax mu man maa ko defal loola kon nag man dama koy sant di ko gërëm di ko ñaanal te gis naa ni xele yi nga xamante ne ñoo nekk ak moom fii tey jii képp koo xam ne da ànd ak moom la may wax mooy boo jébbaloo ci moom dalay wax ni la yow na ngay jàpp da nga soxam njàpp ku sam njàpp toje na nga koy yeesal boo weranteeg say waajur sax ba nga xam ne yow mi yaa nekk ci dëgg neexanteel ak ñoom bañu bañ a mer ca loola tey tamit boo la ngaa nekk ab euh, euh, murit da ngay nekk ab jullit ku nekkulub jullit mënoo nekk ab murit te am mooy juroomi ponk yi nga xamanteni ni moom la diine lalo muy dango euh, euh, séré baatu askan baatu séré yi di nango julli waxtu juroom ah, wer wer weeru koor natt asaka ak dem makka ci boko mané manee te loolu lépp bu lan ci xéer dar bopam taxul ñom ñoom seeni bop ci ñom ñom seeni jëm do nga tax lu leen jariñ tay fi jariñ leen fa nu jëm mo lolu moko waral jariñ it ñi nga xamante ne ñooy seeni waajur waaye moom jariñoowul benn taalibe au contraire taalibe yoo koy jariñoo ndax moom taalibe yi nekk si daara ji ak moom amul benn taalibe boo xamante ne bii du man xam naa ni seex bi defal na la loolu sa waajur mën a lool ñoom ji fi nekk ñoom ñëpp nag defal na kenn ku ci nekk defal na ko sa waajur loolu sa waajur mën a lool mu ko commencé ci samay doom ndax sama doom yi bi mu ko jëndee li ma man mënu ko mën a déet mu yëkkati ne dama dama yóbbu màkk te loola moo ma ko jëkk a defal moo ma koy jëkk mu jëkk defal kenn dootuma ko defal kenn ndax julli aj màkka la cay farata mooy aj gu jëkk la cay dépp ay naafi la dong la te yàlla def na moo ma jëkk a yóbbu màkka kon nag man dinaa ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di ñaanit yàlla lii nga xamante ne moom lañ fa dajee tey ci màggal gii yàlla nu ko fi ay ate at te yàlla nangu liggéey seex bi te xam ne nag ñoom ci yof man dama gën a jaaxal moo di waa yoof yi nga xamante ne dañoo ko réere xaw ma nag dañ koo réere xaw ma dañ koo nanguwul te di ko tey tey teg si loo xam ne xamuñu lu mu doon waaye li wala fi wax suul ker du ko teree feeñ ndax lii yàllaa ko def ci moom man defuma ko ci moom keneen defu ko ci moom yàlla ak sëriñ Tuubaa ak sëñ Fallou soxay bi ñoo ko def ci moom ak sëñ Saaliwu aouzu billah inawal ina gannaaw bi ñu sant yàlla bu wax di ko santaat di ko santaat moom mooy ko yeewlu fas yéene ko tuubal di ko jaamu jaamu ju génn liggéey sëñ Tuubaa ba na barke si Mansour Diouf sëñ Fallou Sow ak ñaanam yàggaf loolu do Diouf waaw di nuyu àddina ñëpp di wax ne ñun sant nañ bu baax sant nañ bu baax si bi sëñ Tuubaa defee ñu fekk magalam gi waaw ñun mom magal gi fi kër Cheikh Mansour Diouf nii lañ koy màggalee ni ko sëñ bi waxee rek noonu lañ koy defee waaw jàng alxuraan jang xasida bernde waaw moom lañ koy defee fi waaw chaque jour chaque chaque màggal moom lañ koy defee cheikh bi nampatal nañ ci ba ba nga xamante ne ku ne booy ñëw sax bu fekkee kenn danaa kat damay ànd ak yow dem màggali di nga wax kat ñun màggal nee na ñuy màggalee waaw man man mi tey dama fi toogee comme ku bokk si kuréel gi ak beneen membre si euh, cercle bi élèves étudiants yi waaw si kuréel gi laay njëkk a wax amaana kuréel gi sax euh, am na kuréel 1 kuréel 2 kuréel 3 kuréel 2 ñoo njëkk jàng mooy premier jour bi bi ñëwee kuréel 2 kuréel 3 moo jàng démb si guddi kuréel moo jàng tey si tey si yor-yor gi waaw kuréel yi noonu la tëddee daal waaw jëwriñ ji nag Mouhamed Sall la ak Baye Sall ñooy ñooy ñooy jëriñu kuréel gi daal waaw léegi nag si loolu nag maanaam dañ ciy sant Cheikh Mansour Diouf parce que ñun boo seetloo bu ñu nekkee xale ba tey ñu ngi ñëw Touba. mais ni ñi magalé fi ci Cheikh bi barké Serigne Touba du mëna amon Touba dé mais rar na fi waaw yor-yor gi dañ koy dañ dañ dañ jang xasida dañ alcorane sax la ñëk jang waccé kamili jang kaamil ba si ñuy xool tooy ñu berne jaam yàlla yi comme ni ko Serigne Touba santaane waaw kon ñun amuñu amuñu leneen lu ñu gis ci xamna ñun xamoon na ñin ñi ñun nuñ meloon waaw ah légui nuñ mel waaw ñun day duñ duñ duñ tok fen wala kuñu gis. ah di jaar si ñun pour yeb pour yeb la non non barke Serigne Touba وسلم la